donc li nga ma laaj léegi mooy agence Frontex euh, bi nga xam ne Union européenne daf ko déployer pour surveiller li nga xam ne mooy seeni frontière liggéey ak Sénégal na ñëw di liggéey ak ñun fii ngir ñuy mën a gis ñi nga xam ne dañ fiy jógee di jéem a mbëkk jàll ci géej gi ngir mën a dem bitim réew loolu nag diggante Sénégal ak Union européenne am na patrouilleur maanaam bateau boo xamante ne day wër ci géej gi di seetu di setantal ñi nga xamante ne dañuy jéem a jaar ci ci ci ci géej gi di di def loolu nga xam ne mooy émigration irrégulière euh, am na tamit avion boo xamante ne dañ ko mettre à la disposition du programme mu nekk fi tamit di patrouiller ak hélicoptère état du Sénégal moom it def na wàllam ndaxte boobaak léegi état du Sénégal def na investissement yu rëy jënd ay patrouilleuram gis ngeen démb bi ministre de l'intérieur di dem ci géej gi Euh, bato bi mu dugg di wër loolu état du Sénégal moo ko am donc collaboration la boo xam ne ñu ngi liggéey euh, jàppante loxo loxo ba tax résultat yu bari suñ ko amee loolu moo tax ndaxte bu njëkk ba danga daan toog lu yàgg ñu ne la bato def na lii diw génn na àdduna ay bateau naan léegi dañ la naan am na ñu ñu jàpp bitim réew euh, Maroc am na lu ñu fa téye dégg nañ nàng waaye Sénégal fii tey ci suñu ay côte dañuy mën a gis ñoo xam ne dañ fiy jóge di jéem loolu tax ñu mën a jàpp ay gaal wax naa la ko jàpp ay convoyeur ak yeneen ak yeneen donc li nga laaj léegi mooy ndax li état bi di jëf ak li état bi di naal ci ay liggéey jëmale ko ci ndaw ñi jëmale ko ci koom-koom bi ndax lu loolu moo dëppoowul ak soxla yi nga xamante ne population yi dañ ko am ba tax ñuy génn di dem bitim réew loolu boo ma ko laajee dama lay leeral ne wax naa la ko sànq am na loo xam ne ci ni ñuy euh, mën na am li ñuy gis ñun ci jamono nga xam ne Euh, diggante réseaux sociaux yi médias yi bu ñu ko xoolee dañuy jàpp rek ne euh, benn jëmukaay rek moo am mooy euh, dëkk yi nga xamante ne mën naa am dëkku kaw la Euh, mooy dëkk yi nga xamante ne jàpp nañ ne tekki foofu rek la mën amee loolu tamit dinañ ko xool ci démographie maanaam ci natt bi ñuy natt euh, askan wi ni mu toll ndaxte boo ko xoolee dafa mel ni téeméeri sénégalais boo jël juróom-ñaar fukki ak juróom am nañ euh, diggante fanweer ba fanweeri at ak juróom wala fanweeri at ak juróom ak lu ko yées donc muy wane ne réewu xale la. réew ndaw la donc euh, ñu ci bëri dañuy bëgg a jàng ñuy bëgg liggéey ñuy bëgg def loo xam ne mën na am lépp suñu koom-koom mateegu ko ndaxte dëkk yëpp seen koom-koom boo demoon tey dëkk yi nga xam ne ñoo bokk G7 bés bu ne nga gis manifestation bés bu ne nga gis ay question sociale wala lu nit ñi di revendiquer wala di xeex wala di génn seen réew donc loolu phénomène mondial la mais li ñu gën a jàpp mooy ci ni ndaw ñi toll ci réew mi politique publique état yaa ngi ciy def euh, lu bëri boo gisee ci chantier état bi liñ ci li nga xam ne moom lañ ciy jël ci croissance bi Sénégal am nombre d'entreprise bi fii installé wu dafa gën a bëri euh, nombre d'emploi bi nga xam ne suñu économie da koy générer mi ngi gën a bëri léegi nag mooy fexe ba li nga xam ne moom lañ tàmbali ak plan Sénégal émergent ci vingt ans mu àgg ba nga xam ne wax dëgg yàlla mbiru emploi dinañ ko gën a mën a téye nga fexe tamit nag leneen li nga xam ne du wàllu koom-koom kese wàllu sociologie la maanaam askan wi ni ñu gisee seen bopp xam ne du bitim réew rek lañ mën tekkee tekki mën na nekk fu ne ku ci ne boo góorgóorloo ci li nga yor boo ci góorgóorloo fa nga ne war ngaa mën a soppi dara ba mën a dem euh, àgg fi nga bëgg